tane li nga xam ne moom mooy histoire u ak ay erreur yuñ ci jot a gis mu waral nag ñoom tam ñu koy bindaat rawatina sax histoire euh, générale bu euh, tariqa murit mu ngi ci jokko beeg Pape Bestiba Seydou Noro Djerejef, suñu gan Cheikh Fatma Mbacké la membre la ci Rawdu Rahim itam membre ci comité bi bind livre bi nga xamné ni mom moy corriger erreur yi nga xamné mo nek na ci histoire générale bu bu Sénégal euh, Seigne bi Mbacké RFM ngi lay nuyu. waaw ñu ngi leen di fay. lan ngeen jublu ci livre blanc bi ngeen génnee fan yi waaw téré bi nga xamné dañu ko génne li ñu ci jublu mooy dañoo gis ne euh, histoire générale du Sénégal maanaam euh, taarixu Sénégal dañoo dañ ko bindaat dañ dañ koy bindaat ci at ci ginnaaw lañ génne téere yu njëkk yi euh, ngir ne histoire boobu xëy na lu jiitu tubaab yee ko daan bind ay jàmbur a ko daan bind léegi nag Sénégal yi bëgg ko bindal seen bopp loolu nekkoon mébét bu rafet bu ñu rafetlu waaye nag ci téere yi génne yi ci njëkk génn bokk bare bari dañ cee indi ay jàmbat ci ay njuum teeg kër yi diine yeeg yeneen kër kër yi kër yi eh, ceddo yeeg kër yi buur yeeg yëpp dañu cee gis ne daal seen histoire niñ ko indee demeewut noonu ñun nag raw Rawdu Rayaahiin nga xam ne kuréel la goo xam ne daayira boo xam ne eh, Sëriñ Saaliwu Mbàkke moo ko taxawaloon mu dajale ay boroomi xam-xam yi yoonu murit eh, ñu gisoon ne jërutoon di coow ak a mbamb ci média yi ak jàmbat waaye xëy na li gën mooy ginnaaw liggéeyu xam la ñun tontu tontu xam-xam moo tax ñu ne nañ bind téere boo xam ne njuumte yiñ ci gis yëpp lu aju ci Cheikh Ahmadou Bamba ak murit yi ndax ñun ci loolu ndax mën nga si ñëw gën a indi leeral waaw njuumte yi moom njuumte yu wuute la ndax euh, lu mat euh, juróom-ñett fukk ak ñeent muy quatre-vingt-quatre ku gis nañ ko ci waaye ku bu ci nekk mën naa am njuumte yu bari nga xam ne soo limee njuumte yëpp yëpp moom dana jege euh, ñaari ñaari téeméer buy deux cent am na ci njuumte yoo xam ne dañoo jàpp ne xëy na yu woyof la muy ci njuumte ay date date de naissance njuumte ay tur wala lu demee noonu lu mel ne ci misaal ñu ne Serigne Massamba Mbacke ak Cheikh Amadou Bamba ñoo bokk ndey ak baay te ku ne xam na ne Serigne Massamba te ñoom sax andi nañ turu way juru jigéenu Serigne Massamba muy soxna Fatou Issa Diop andi nañ ko ci téere bi waaye ñu ne moom Serigne Touba bokk ndey ak baay alors que ñëpp xam na ne Serigne Touba maam Jaara Bousso mooy way juru jigéen kon loolu di lu élémentaire loo xam ne suñ suñ jàngaatoon téere bi biñ ci noppee yëraat ko wala ñu jox ko keneen ku ko yëraat loolu danañ ko gis dafa mel ni kon série bi ñu ci waroon def defuñ ko ci defuñ ko ci lool kon yooyu ay njuumte la lu mel ne maam Cheikh ñu ne mille neuf cent mille huit cent soixante et un la gane àdduna nga xam ne kon day nag maam Thierno Birahim alors que maam Thierno Birahim moo ko mag yu mel noonu njuumte yu woyof lañ ko jàppe dëgg la sax benn njuumte woyoful ndax liggéeyu xam-xam moom dañ cee waroon a def fulla ak yitte ci war ba njuumte yu sew sewaan yooyu du ci na yooyu moo gën a woyof hmm. njuumte yu digg doomu yi moom ñi ngi jàpp ne moom i bari na ci ndax euh, ñu ngi wax ne par exemple Mame ay Aïcha nga xam ne mooy maami Serigne Touba moo juru way juru góoru Serigne Touba ñi ngi naan euh, am na fu ñu waxee ne mooy taawu Mame Mara Mbacké waaye am na fu ñu waxee ne sëtu Mame Mara Mbacké la ci benn téere muy histoire générale du Sénégal xam nga loolu itam wax dëgg yàlla gëstu xam-xam nanguwu ko mm-hmm. ci benn téere ay contradiction yu toll noonu di ko ci indi loolu itam wax dëgg yàlla doy dawaat am na ci nag yoo xam ne moo gën a moo gën a yées mooy njuumte yi gën a yées euh, lu mel ne ci euh, misaal ñu ne Serigne Touba bi mu demee jëkkee dem gànnaar euh, Mauritanie foofu la joxe boppam turu xaadimu rasool foofu njuumte yu bari nekk ci ndax xaadimu rasool ñoom dañ ko firé ne mooy jaamub yonent bi alors que jaamub yàlla lañ ko war a yàlla la ab jullit war a doon doomu aadama yëpp jaami yàlla lañ kon serviteur du prophète jëwriñ yonent bi loolu la ñëpp xam waaye ñoom suree ko nale beneen beet ñu ne moo ko surwoow mu tudd boppam alors que Serigne Touba ci boppam wax na ne bi muy dem ci géej gi bi mu duggee ci bateau bi jëm Gabon 1895 ci la ko suñu borom xamale ne moom mooy Xaadimu Rasuul di jëwriñ yonent bi ba pare ñu wax fa ne itam bi mu demee Mauritanie pour jàngi arab la gën a xiirtal boppam ci jaamu yàlla ak yu demee noonu nga xam ne daal day mel ne dañoo bëgg a indi euh, complexe de d'infériorité ci jullit bu ñuul bi ak jullit bu jullitu arab euh, loolu itam di lu doy waar euh, ndax ku ne xam ne ne Cheikh Ahmadou Bamba avant muy dem Mauritanie ci voyage yooyu ñuy wax jàngoon maîtriser arab maîtriser koo xam ne jekku ko jekku goo xam ne taalif ay téere yoo xam ne qualité scientifique bi ci nekk taxoon na way juróom yi nga xam ne institut bu mag la jiite woon da daan jël téere yi sax Ahmad Bamba taalif di ko jàngal sax ay étudiant ay ay ay kon nag fi mu àggoon ci arab ak fi mu àggoon ci xam-xam ak fi mu àggoon ci jaamu yàlla ku ne xam na ne lu jéggi daya la woon kon nag di wax naan dafa demoon Mauritanie ngir lu mel noonu loolu itam njuumte bu garaaw la ndax day faussé fondamentalement kan mooy kan mooy dëgg-dëgg Serigne Touba mhm. euh, yooyu daal mooy ay ci misaal euh, juumte yi bëree bëree bari la ni ma la ko waxee. waaw waaw léegi yéen la fekk. yéen ñi bind livre blanc bi ñu ci bari ay mbokk lañ ci kër gi lañ bokk ñenn ñi di ay taalibe ndax loolu caractère scientifique bi nga xam ne nii euh, téere bi war na ko am ndax du ko du ko xaw a wàññi tuuti. yaakaaruma ko ndax euh, li am solo mooy nit ki suy bind mu ragal ci yàlla maandu wax dëgg. jàpp naa ne ñi doon bind téere bi. ak source yi ñu ko jëlee. ndax Euh, li ñu reproché itam histoire générale du Sénégal mooy dañuy sukkandiku ci source yu matul source maanaam delluwaay yu matul delluwaay ndax am na foo xam ne dañuy wax naan diw di notable ci Saint Louis moo ñu moo ñu nettali loolu euh, te bàyyi fi source yoo xam ne Cheikh Mouhamadoul Bachir di doomi Serigne Touba jur di di way juru xalif général Cheikh Mouhamadou Mountakha moom mooy biographe bi gën a mag ci euh, histoire Serigne Touba minanil baaxil xatim téeréem bi lu bare bari ci lañuy ñuy dellu ndax moom du mat ñaar fukki at taxoo na ko way juram Samadou Bamba kon kooku xam na ci dara te ku ragal yaa yàlla la dara jëral lu ko wax lu dul noonu kon loolu source bu suur bu dëggu la source bu wér la te yu bare bari ci gëstukat yi ci la dellu ndax xam ne ni source bu wér mm. kon ñun ci source yooyu la ñu dellu ak sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana ak yeneen waaye dellu tubaab yi def ay recoupement dem ba xam ne lii mooy li am su ko defee kon loolu du travail scientifique boo xam ne indi nañ ci maandu indi nañ ci ragal yàlla xam ne dara jëraluñu wax quand même lu dul noonu ci rawatina nag ci histoire ku mel ne Cheikh Ahmadou Bamba am ngeen accès ci archive yi nga xam ne tubaab yi ñoom ñoo ko yor ba léegi waaw liñ ci mën a am accès am nañ ci accès ndax am na ci loo xam ne archive nationale du Sénégal euh, politique am na ku mel ne archiviste bu mel ne eh, Omar Ba nekkoon ak archiviste ci jamonoy tubaab yi nga xam ne bind na sax téere bu mu tuddee Cheikh Ahmadou Bamba face aux autorités coloniales nga xam ne archive yu bari def na ko ci loolu am nañ ci accès am nañ sax ci comité scientifique bi doon liggéey teere bi koo xam ne euh, ku ñuy wax Serigne euh, Lamine Lo ñu ngi dëkk booru Marseille nekk aix euh, ci wetu Aix-en-Provence lay fa la nekk te xam nañ ni Aix-en-Provence fa la archive coloniale yi fa lañ ko dajale maanaam tubaab yi bi ñu jógee Afrique seen i mbind ak seen i archive yëpp dañ ko yóbbu yu ci bari boog dañ ko yóbbu France ci aix fa lañ ko fa lañ ko denc moom day dem foofu di fa di fa gëstu bokkoon na ci liggéey bi doon bi doon def euh, ci livre blanc. yan profil ñoo nekk ci ñu bindal livre bi. waaw profil yi ni ma ko waxee ay gëstukat ay borom xam-xam ku mel ne Serigne Cheikhouna Mbacké Abdou Wadoud moom euh, Al Azhar Caire fa la fa la fa la jànge Serigne Sambousa Al Azhar Caire fa la jànge moom inspecteur de l' éducation nationale la Serigne Mbacké di borom xam-xam bu mag di conférencier Serigne Lamine Lo moom ma la tudd Serigne Omar Ba nekk Paris moom moom it euh, di borom xam bu mag Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Ka jànge Arabie kii ci la ci la bokkoon sëñ Mamoor am ci la bokkoon ak ak ñeneen ak ñeneen nga xam ne daal euh, ay boroomi xam-xam lañ ci yoo ci yoonu murit waaye ci réewum Sénégal ndax ay Sénégalais la d'abord ñooñu ñoo ñoo ñi nga xam ne ñooy gëstukat yi nga xam ne ñoo ci ñoo ci bokkoon man mii ci laa ci laa bokkoon man sama sama profil ingénieur informaticien la waaye naka jëkk gëstu ci yoonu murit gëstu ci lislaam gëstu ci histoire Sénégal dafa maa yitteel man itam ci laa bokkoon kuréel gi mu nekk euh, lu euh, communauté général des des Mourides ndax yéen adressé wu ngeen directement ak ñi bind histoire générale bu Sénégal bi. waaw loolu def nañ ko ndax euh, bi ñu yëgee ci média yi rek ne dañuy waaj a bindaat taarixu Sénégal Serigne Ahmadou Badawi mu Serigne Fallou nga xam ne moo jiite Rawdu Rayaahiin dafa bind lettre. Euh, professeur Ibadel Sam wax ko ne ko ñi ngi koy ndokkel waaye ñi ngi koy ñaan yi diine yépp ak kër yépp ak kuréel yépp ci réew mi ñi composé réewum Sénégal en tout cas ñu boole leen ci liggéey bu am solo bii ñu ko dénk euh, mu daal di tontu wax ne loolu dana ko def euh, dëgg la ñi euh, ubbi yëf yi liggéey bi bi ñu koy ubbi invité woon nañu bañ dem teew ci bañ gisee ne lii lu am solo la lu ñu war a jàpp la dañoo woote ci Touba am ndaje moo xam ne atelier lañ koy tuddee muy lëlub liggéey boo xam ne lëlub xam-xam euh, dañ boole woon boroomi xam-xam yu bari waa raw daraaxin ak ñeneen ku mel ne docteur Cheikh Gueye euh, ci la bokkoon ak ñeneen ak ñeneen nga xam ne ci lañ waxtaan nan la ñuy def ba participer ci liggéey bu mel nii nga xam ne bañ ca jógee dañoo bind ne ko professeur Thiam kat ñun ressources yii lañ lay proposé su dee da bëgg a xam ci xaani Serigne Touba diw ak diw mën nañ cee wax su dee da ngaa da ngeen a bëgg xam Serigne Touba fu mu jàngeek fu mu jaar ak ba ba fi way juram jógee mën a cee wax tukkib géej gi tukkib gànnaar bu nekkee njaareem gënteem ak tubaab yi lu ci nekk ñu proposé ak ay personnes ressources yoo xam ne jàppale mu tontu ne jot na ci xalaat boobu jot na ci proposition yooyu biñ toogee ba mu yàgg dégguñ ko relancé nañ ko man mii jël naa tànk ànd ak docteur Cheikh Gueye ñu dem ba këram toog ak moom waxaat ko suñ disponibilité mu rafetlu ko ne danañu ci associé dañ toogee lu yàgg dégguñ ko bindaat nañ ko email wan ko ne ko ñi koy fàttali ne ñi ngi xaar mu jox ñu ay orientation ci nawet ndax dañun sax def nañ proposition bu gën a bu gën a te xóot loolu ndax dañ ko wax ne ko këri diine yi suñ bindee ba noppi kenn ku ne mën naa proposer dara waaye nag mën ngaa tànn ab professeur d'histoire mu coordonné loolu nga xam ne euh, xay na norme yi gëstu xam-xam ci wàllu histoire laaj professeur yooyu mën koo mën koo saytu ba nga am wala yu deme non lolou dañ ko bëggoon éviter mhm. motax proposition yi sax defaale won nañ ko ci ci ci xalaat bi waye nak malheureusement tontu wuñu tontu wuñu bañ njëkkee ya rek dégg nga téere yi gënal na eggee ngeen ko livre bi wa livre bi euh jox nañ leen ci euh, lu ma fukki fukki exemplaire jox nañ leen ko ndax invité won nañ leen sax ci euh, ñoo leen wutal sax auto bu leen bu indi euh, ba fi ci Touba fiñ doon defee présentation téere alhamdoulillah ñoom it wax dëgg yàlla jël nañ ko lu xam xamé ndax ñëw nañ malgré que xam nañ ne lu critique lañ def ci ñoom seenub liggéey. Mhm. waaye ki topp ci professeur Iba Der Thiam euh, muy soxna soo xam ne professeur bi département histoire ñëw na. Euh, rapporteur général bi professeur Mamadou Fall ñëw na ak beneen délégation euh, yu jógee département histoire u IPCAD ñoom ñëpp biñ ñëwee wax nañ wax nañ ne ñoom wax dëgg yàlla li ñu fi dégg convaincre na leen ci ne ñoom def nañ ay njuumte ci liggéey bi. reconnaître nañ ko wax nañ ne itam danañ ko rectifier. retirer wala ñu dakkal yaatal gi ñuy yaatal téere boo xam ne dafa bari erreur euh, te itam ñoom gis nañ ne wax dëgg yàlla critique yi ñu leen def nangu nañ ko te gis nañ ne xam-xam it looloo koy doxal ndax xam-xam du xuloo euh, jàmbat ak xeex waaye xam-xam te ci xam-xam débat intellectuel la war a doon te ñun itam cadre boobu lañ ko jëloon waaye ñoom it nangu nañ ko noonu. livre bi ngeen génnee ko ci ay fan rek magal gi ñëw ndax. Euh, wala da ngeen ko ci waa waaw nattuñ ko ci wax dëgg yàlla ndax sax ñun dañ ne woon nañ éviter mu jege màggal gi ndax màggal gi en général lu ko jege rek mënoo communiquer ci loolu ba euh, màggal gi du ko du ko du ko muur ndax màggal gi événement bu bu international bu rëy boo xam ne màggal gi rek ci la ci la nit ñi wax waaye dëgg la lii ñuy def it ci ci màggal gi la jëm ndax ci ndonol Serigne Touba tubaala bokk ci histoire am moo tax euh, bëggoon nañ koo def jiitu lii waaye Covid beeg euh, xëy na moo gën a yeexal suñu liggéey ndax liggéey bi lu ci bari de manière lañ ko doon def. Euh, ci jumtukaay xarala yu bees yi moom lañ doon jëfandikoo euh, muy ay Zoom ak muy ay WhatsApp ak yu demee noonu euh, ci lañ liggéey ensemble ñi nekk France ñi nekk Sénégal ñi nekk Touba ñi nekk Dakar borom xam-xam yooyu yëpp di ba mën a génn téere xëy na nag jamono ji ñu ko génn xëy na bëggoon nañ gën a teel waaye nag jamono ji baax na ndax ñu bari yëg nañ ne effectivement lii liggéey bu am solo la boo xam ne njariñul Sénégal rek lañ ci doon sàkk. Cheikh Fatma Mbacké RFM a ngi lay gërëm. maa bu baax may fàttali ne yow membre nga ci raw Rawdu Rayaahiin di kuréel gi nga xam ne yéen a bind livre buy indiwaat ay leeral ak i tontu ci histoire générale bu Sénégal ñu lay jaajëfal.